mbas maa ngi fi Nguñaan ñu ngi mais ñu ngi gérer liñ ci mën parce que ñun ICP ñu ngi def suñu wall CDS min ñu ngi def sen wall commune ñu ngi def sen wall les populations bi la bëgg ñaax rek ñu continuer ñu gëna gëm né mbir ma ngi fi pour ñu accepter lolu nangul lañ leen di wax pour permettre que li mën fee gaaw joggé chaque année dañuy faral di ñëw fi dajé ak euh, le conseil municipal de Ngoundiane ci lépp lo xamné ci walu secteur santé la ñun CDS yi ak euh, personnel bi ak euh, la mutuelle bi dañuy toog waxtan ci jafé jafé yi nga am ci walu yi ñu wax ko suñu doléance monsieur le maire li nga xamné monam mom lañu la ñu tënkoon daaw dañ ci ñëwaat ba xam est-ce que ndax def nañ ko wala déet ak réalisation yi nga xam mom lañu bëgg ñu def ko mais loolu tegaat nag sur la table monsieur le maire wax na effectivement dinañ ci taxaw en plus de ça il y a aussi le recrutement des sages-femmes de Sewkhaye et de Tiangaye beneen bi ñuy mottali moom mooy euh, personnel bi nga xam ne maire jël na ko bu ñu fàtte ne daf ñoo jëlal au niveau de chaque poste trois personnels boo xam ne sur le plan communautaire ñu CDS ñoo leen doon fay mais léegi maire yi moo leen jël en compte di ko fay ci fonds propre ñu ne nag toujours comme dañoo am personnel ba fa des ci yooyu jël na chauffeur jël na ambulancier jël na benn ASC. d'habitude poste yu bëri suñu am ñaari ASC am ñu ne benn ASC bi des ci poste yi nañu ko jëlal pour que loolu mën a mat ci dans le cadre de la gouvernance de la fonction publique locale li nga xam ne nguñaan tàmbali na ko mu matal ko moo tax doole ñu daal di teg ko sur la table pour que loolu maire bi mën koo def. dañ doon daje ak ñi nga xamante ne ñoo yore lépp lu dem ci wàllu wér-gi-yaram ci commune bi. muy euh, infirmier chef de poste yi muy ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore commité de développement sanitaire yi ak euh, ñi nga xamante ne ñoo yore mutuel de santé wu Ngoundiane euh, ndaje mi nag liñ ciy def mooy dañuy njëkk a waxtaan ci lan mooy suñu ay jafe-jafe ci domaine bi ba pare xool yan saafara lañ ci mën a indi mais aussi ñu xool en terme de perspective lan la ñu war a euh, def. tey nag de manière précise li ñu doon def mooy jébbal leen ay médicaments. waye aussi euh, ñu djébalalé aussi ay subventions yo xamantene def nañ ko ci domaine de santé tay médicaments yi ngeen gis suñu ginnaw ñi ngi tollu ci valeur du 5 millions euh, ñom lañ doon djébal ICPI je rappelle que né ñun fii Ngoundiane 5 postes de santé la lañu am mais lu dul euh, médicaments yi ñu euh bo xayma li ñu joxé yépp ci volet santé bi ren. toll na ci fukki million ak juróom bu tegal genn wàll bi mbas mi amee ci réew mi nekk situation bu bees euh, njiitum réew mi dafa woote li ñuy wax solidarité nationale wax euh, commune euh, collectivité territoriale yëpp nañu participer boobu Ngunjaan participer na à hauteur de deux millions maanaam génne na ñaari millions joxe ko ci ci ci ci woote njiitu réew mi waaye noonu la ñu génne waatee aussi ñaari millions teg ko fii ci Ngunjaan daal di woo doom yu Ngunjaan yëpp pour ñu jàpp ci nga euh, li xamante ne mooy comité local bi ñu tegoon fii ci Ngoundiane waa Ngoundiane dajale nañ lu ëpp 3 millions ñëw joxe ko fii jox ko euh, comité local bi donc ñu profito sant leen waaye euh, en plus de li ma doon lim léegi rek poste de santé yi cinq lañu bu si nekk jox nañ la un million boo xamante ne dañ lay jàppale pour nga mën a fay sa facture ndox ak sa facture courant waaye boo xoolee poste de santé yi aussi à côté day am mutuelle de santé mutuelle de santé bi itam chaque année dañ koy subventionné ren jox nañ ko une subvention à hauteur de un million cinq cent maanaam million ak genwal boo dajalee lépp nag loolu mooy toll ci fukki million ak juróom waaye loolu dañ ko dendale ak euh, beneen jàppale bi ñu leen di jàppale ci wàllum payoor ci personnel bi nga xamante ne ñooy liggéey ci poste de santé yi muy chauffeur muy euh, am euh, comme comment dirais-je ASC muy dépositaire boo ko limee ci commune bi mi ngi war a toll ci fukki nit ak juróom yoo xamante ne commune bi moo leen di fay chaque weer.